asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar yéen ñuy topp saa su ne ci Waarwi TV nekk alalu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul Waarwi TV ci doxantu yi muy doxantu ak cër bi nga xam ne jox na ko njaboot Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul gi ndax fii ku fi am jàmm Sëriñ tubaa moo la may jàmm ndax moo ñu tukki loon moom lañ moo ñu liggéeyee lépp tey ban mën a noflaayu ci biirum njabootam nag ñu fi màggal tey kenn ci ñun di bàjjani ñëpp di yaay ñëpp di maami ñëpp muy soxna Astou Gawane Mbacké mu Cheikhul Khadim tey jii nag bis bi nga xam ne ci leen koy màggal nekk juróom benn fan ci weeru juillet fii ci Touba ñëw fii nag ci këram gi nga xam ne ci new yi képp ku ñëw ko soxna Astou Gawane da fekk new gi nekk new gi nag nekk new cosaan bu yàgg yàgg yàgg soxna si nag ay ci ñi muy yaral boppam ndax soxna sugaan ñi mu yar a baax rawatina nag kenn moom ànd ak moom ci liggéey Serigne Touba bi nga xam ne moom lay liggéey ñu doon ci suñu jëwriñ muy soxna maam Issa Mbacke Akhlou Café koo gis xam ne doxinu soxna sugaan lay doxe jëfinu soxna sugaan lay jëfe ndax nit ku ne dana wax ma sa jikko ñu ne woon ma ki ma ki la yar macha allah ki ko yar naxu ko benn yoon yar na ko yarum nit ku yiw yar ko ku baax boole ko ak asoon am taxawaay boo xam ne dafa waroon na mottali liggéey soxna si ci jëfinam ni muy defaree ni muy defaree ndaw ñi ni muy defaree mag ñi ndax ndaw bu ko fréquenté rek ci kattanu yàlla da nga mujj soppeeku mel la nga xam ne moom la lislaam bëgg moom la Cheikh Ahmadou Bamba bëgg kon nañuy ñaanal soxna Mamy Samb mu gudd fan loolu tëwee ñu fekk ko fii nag ñu bëgg koo laaj digganteem ak soxna su gaawaan salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw bu ñu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tey yeesalaat bu baax sunu njëbbal ci ma Massamba sunu bunt Serigne Touba di yeesalaat bu baax sunu njëbbal ci soxna Aïssata Mbacke Gaawaan bunt Cheikh ma Bamba sunu Serigne sunu wasila sunu waajur ñu fas yéene doon ab jaam rek sunu diggante moom nag boo nu ko laajee dañ ci sawar lool ndax kër gi ñu nekk tey jii suuf si fi laa yaroo daan bàyyi ko ci kër gi di dem te moom mais ba ci la ma ràññee ci gone yi fi nekkoon gis ma ak yor-yor mu ne ma sama doomi xol nga def naa la nga sama doomi xol boo xëyee na nga ñëw ma bindub téere bindub takkal ma ko ne ma yet takk ko ci sa digg bopp rek ba mu daar dina baax de demal keroog laa ko gëj a gis ba ni mu wàcceb liggéey mu yan ma kafe gii nag ma dik ko liggéeyal ci biir réew mi bitim réew mi mu doon liggéey bu wér boo xam dama koy liggéeyal bu amul sikki saaka ndax doomi Sëñ Tuubaa kenn du ko waxat lu nekkut kenn du ko neel te ma nga ca dëkk maa ngi ci fen kon lépp lu koy waxat rek dëgg la ndax yàgg danaa ko fekk ba fii ma toog ne damay feeñ naa mbaa yaa ngi séddale kafe gi ma ne ko waaw mu ma dee ko séddale ma nekk kafe gi nag di ko séddale ci biir réew mi ak ak ak bitim réew taxaw taxawaayu taalibe taxawaayu taxawaayu doom su ma neexee sama wax ko ndax moo ne ma sama doomi xol nga ma bokk ci doomi xol yi gën a ràññee ci moom mu doonoon tànni foo xam ni leerug Serigne Touba goo xam ne Serigne Touba moo ko tànnal boppam def ko ci xoli doomu aadama yëpp kon tey buñ koy màggal nii rek lañ war a taxawee ci bis bi waroon nañ tey lu fi dee rek ñoo ko war a rey ndax taxaw nañ ci moom taxawaayub doom taxawaayub taalibe taxawaayub jaam jaamaat parce que yéen ko liggéeyal rek kafeem gi nga xam ne sëñ Tuubaa jógee ci géej gi indi fi loolu kafe dafa gis lépp seexla ko indi fa kafe indil ko jaam ñi ñu ci sifaaw min kulida bu ñu amee naqar kafe lañuy ñuy moo ñuy giifal suñu amee bànneex kafe la ñuy mu rafaatale ko ko nag moom doo leeram kooku ci boppam mu daan ko jël nag di si dimbali doomu aadama yi ci saayir ak ci baatin ku ci la lay faj am te ci la la koy fajal lépp lu mas a jaaxal nit soo dikkee bu xellee kafeem ko ci loxom bu sedd sell boobu moom soxna Astou Gawane sa aajo dina di nga wér daanañ génn nit hôpital ba ne daa cancer day faatu bu xellee kafe jox ko day daal di wér fi saa te ñam ci fajoon ñi ngi fii ni jonn ba leeg kooku mooy borom bis bii tey ñu taxaw fi nag ci taxawaay lépp lu mu bëggoon alxuraan la bëggoon ak xasida ak bernde loolu rek la soxna Astou Gawane bëggoon kenn ku ne rek wàcceel na la ndabul teraanga ci waa kër Serigne Touba yi doomu Serigne bari moo leen naan loo kafe ba ci Cheikh Saliou Mbacké mi kon tey nii ñu taxawee ci bisam bi noonu lañ ci war a taxawee ndax li mu bëggoon rek lañ ñëw ko defal fii muy alxuraan ak xasida ak bernde waaw soxna Dia mën a wax ci soxna ci waxtaanam loo xam ne da doonoon na jëmm joo xam bëggut lu Serigne Touba bëggut lu yàlla ak yonente bi ndax ñaari leer yi nga xam la amoon ñu jigéen dafa daan wax naan mënuma boole bëgg yàlla ak bëgg doom sama xol bi na Ami Touré mi nga xam ne fi mujj keroog ba mi wujj borom da doon reenaat alhamdulilah sant la leen ma yàlla Ami wujj na boromam ndax sama xol bi ma ci boole bëgg yàlla ak bëgg doom keroog moo doon dagg mburu ya di ko saraxeel boppam ku ñëw mën la sant la ma yàlla doomam jooju ku ko masaan xol da ngay sëgg ndax rafet kooku mooy soxna Astou Gawane doon na koo xam tamit lépp lu mu wax rek jubóo na ci boromam lépp lu mu wax rek juboon na ci ak boromam waaw bari na ay yu bari yu mu fi def yoo xam ne mënees na cee nettali suñ ko doon nettali am na ko yoroon bi ay mbuumi saab-saab ñu daan dem ci ñaan benn bis bu yónnee ci ñaan te kooko ne ko nekk mbuum mi jeex na mu ne kon ba amatul mbuum mu doy dañoo koy garab yëpp dee waaw kooko soxna Fat Ndiaye saab-saab lañ ko daan wax fii la nekkoon këram sori wutoon fii dara ak yu bëree bëri ay kiimaan yu bëree bëri yoo xam ne def na ko fii ñun ñu fekke ko nee na woo na fii sëñ Abdoulaye ne ko sama neg bi buñ ko xaddut du taw waaw sëñ Abdoulaye sama néeg bi buñ ko xaddut du taw keroog bañ ko xaddee ba ngoon jot la taw ba soob woo na fi sëñ Abdoulaye xarloo na ko fi mat woo na fi sëñ Abdou Khadir ni ko xorom amul ci kër gi Cheikh Abdou Khadir yónni téléphone Kaolack ñu indi ñeenti camion xorom kon jigéen la woon yoo xam ne wàggat sëñ Tuubaa ñëpp ko bàyyi woon xel te ñëpp la daan liggéeyal ndax ñoom xamoon nañ fa mu taxee woon sëñ Tuubaa kepp ku masaan a woolu da ngay jógee sa kër ñëw fii lañ daan toog mu woolu sëñ Abdou Lahat mu doxee këram ñëw mu woolu sëñ Abdou Khadir mu doxee këram ñëw ba ci sëñ Mbacke soxna loolu da daan toog fi ne woolu ma sëñ Mbacke mu dawee këram ñëw def tànkub ne kon ko jigéen jooju kenn la woon ci waa kër sëñ Touba kooku nag mooy soxna Aysatu Gaawaan Mbacke di sunu lépp waaw di ñaan nag bisam bi tey képp ku fi teew rek yal na yàlla faj say aaj sëñ ji saara nga nii kii lii may wax mat na ci seede ndax ba ñuy gone moom moo doonoon jëwriñ yu góor yi fi nekkoon ci la bokkoon doonoon ku ràññi ko woon ci soxna Astou Gawane moom bokkoon na ci njabootu xel gi ñun ñoo njaboot gu jigéen gi ñoom ñooy njaboot gu góor gi ñu taxaw fi nag taxawaay bu mat sëkk boo xam ne doom jum jur sa su fi taxawee woon du se nii ñu fi taxawee kon sëñ ji bi xam naa kon dama lay jox kàddu yi nga eggale li ci des. li ma njëkk def mooy nuyu sama sang bu tedd bi ko seulement Issa Euhlou Café ci turu njabootu Soxna su Gawon gi yëpp nag di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ndax moom day pàgguteefu Soxna su Gawon cërëm bii mu am ci Soxna su Gawon euh, ba mu koy am boobu fukki at yi xam naa bu ko weesoo tam la mu ko weesu bariwut waaw waaw te man mii keroog man mii la soxna si jiit leen ma ma ŋàbb bagage yi topp ci gannaaw muy dajeeg sono si muy bés bi muy dajeeg sono si sono si di ko tegal garab sono si nag kookal la ma ne ko kii day maam Issa Mbacké la sëñ Modou Faty Khary moo nekk fii ci sono maam Faty sono si ŋàbb ko dem ak moom ci biir néeg tabax wala néeg néeg néeg néeg néeg barak waaw néeg mbaar mbaaru jullikaay ba waaw nga xam ne eh, am na ci loo xam ne li ñu naan cër borom keroog la décret bi wàcc solos gaawoon noonu ko sëñ Tuubaa rafatale woon juróomi kilo kafe yi ne ko ay Aysatu de ci dimbale jàmm yi xanaa xam nga loolu loolu noonu la demee sëriñ Tuubaa ci boppam moo yëkkati juróomi kilo kafe jox sono solos gaawoon ko café mooy fajuk ajoog murid yi keroog suñu borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko yónni mu ñëw jox ko sëriñ Tuubaa sëriñ di ci def di ci dindi ba ko wóoral ne mu ngay dem ci la bàyyee sono gaawoon moo tax bu ñu nee café Touba rek xel yi ñëpp dañ ci café Soxna si Gawane bi moom nag moom tew feexu boroom xamoon na ne jamono dina dox ba kafem euh, gi dafa war a yaatu ndax yërmande moo di toll ak it ndigal sëriñ Touba gi mu mu mu mu jox ko secret bi kon loolu coobare suñu borom la sëriñ Touba day xool suñ borom ba mu yàgg mu ne ko subhaana man yaf'alu maa shaa'a fi maa yashaa'u wa lahu al-inshaa'u subhaana man tudd naa sell ka nga xam ne. yaf alu dana jëf macha allah la ko soob fii maa yee ci fa ko ñu ne ko lu tax mu ne wëloo ñu ne la ko incha allah loolu coobare suñu borom la woon mu takkal ko grade boobu fu ma toog dinaa ko wax. moo tax ma déggee léegi ne mi ngi may laajte dama ne xaaral lu ma jàppoon dinaa ko bàyyi ñëw ziar ndax keroog bañ koy tegal grade yi sama kanam la waaw kon kon kon ñu ngi ñaan yàlla tas ñu ci barkeem waaw te café googu sonos gaawoon euh, dama dama caa teew. du benn yoon du ñaari yoon mu ci def di ci dindi ba ci kilifa yu mag yi nga xam ne ñoo toppoon Serigne Touba tamal ko ci ay ñoom sëñ mu jëw pax ak ñooñu nañ ma saa soo xamee ne am nañ leen jaaxal seen diggante ak seen borom gisatuñ Serigne Touba ba soxna su gaaw di nekk tout tànk dañ ko daan nemmeeku ji fexe ba soxna su gaaw xel leen kefe ñu naan ci mag ñooñu la la wax de ñu soog a ñëw nag ci doomu Serigne Touba yi ak sëti Serigne Touba yi ak seex si waaw kon café gi c'est universel waaw kon fii nga ko fii nga ko fii nga ko yëkkati fii nga ko teg yàlla nañ ci dajale taw feexu borom du ma la wax yow sax waaye ñun ñëpp yàlla nañ ci taw feexu borom waaw waaw nañ ko ànd ak ko ànd ak moom kon euh, euh, noonu <laughs> ah, <laughs> waaw ah loolu yaakaar na yaakaar na ko nag yaakaar naa ko nag waaw waaw waaye Sono si daal eh, li ma la ci mën wax daal mooy moom day xolub Sëriñ Tuubaa ba jëmm joo gis ay cër ñu ko composé kii mun na nekk tànk ba kii nekk loxo ba kii nekk nopp ba ki nekk lamiñ ba kii nekk leneen waaye xol ba moom xolu sëriñ Tuubaa ba soxna su gaawoon la te sëñ bi moo ci jublu woon la it ma ne la mooy xolu soxna su gaawoon mooy xolu sëriñ Tuubaa ba ci anam yi nga xam ne moom la gane si àdduna ak la ci sëñ bi wax ci gannaaw ñibbi si géej gi ndax sëñ bi Tuubaa 1895 la dem ci géej 1902 novembre 1902 la ñibbisi dafa juróom-ñetti at yu manqué tuuti ba muy dem nag fi la bàyyi sëñ Modou Moussa fi la bàyyi sëñ falu sëñ Mamadou Lamine Bara sëñ Bassirou ci gannaawam la gane si àdduna ba sëñ bi waxal ci waxam ji rëy jooju ne bu soxna fa soxna Fatou soxna Fatou mi daal bu fekkee ne li mu àndal gane si na jamono bu dee bu dee bu dee góor nañ ko tuddee Mouhamadul Bachir muy yonent bi bu dee jigéen ñi tuddee ko soxna Xadi Mbakke di leen sëñ ci waa joxoon ndigal Cheikh Fall na ci tonnet ne ah kon de góor lay doon ndax sëñ Bamba lu mu musa wax rek lu mu njëkk wax rek loolooy am kon am na ku mu loolu dem ci biir géej gi muy soxna Astou Gawane bintu Cheikh Xadi kooku dafa jël ci ñetti téeméeri natt yi yi nga xam ne tegoon nañ ko sëriñ ci waa ci biir géej gi ci diiru juróom-ñetti at yi muy 285 épreuve mortelle benn bu ci nekk buñ ko tegoon ak wàllu benn nattu rek wàllu yu ko seey fukki wàllu sax mu mënuñ ko dékku loolu la sëñ bi wax waaye juróom-ñaar fukki natt yooyu juróom benn fukki juróom-ñetti juróom juróom benn téeméer natt yu manqué fukki natt ak juróom sono su gaawoon la ko àndaloon moo tax mu doon mu andi mu indaale njàmbaar goo xam ne gii ba muy feeñ ci gànnaar en 1904 te sa ci ñaar fan yàgg juróom-ñaar ci weer Soban sëriñ ci waa wax ci wax waxam jukkee man jooju ne day am ñaari gan genn gan gi moom mooy teerul geneen gan gi bañ ko ne soxna Xadi Jóob indi na fi gan ndax soxna Xadi Jóob boobu buñ koy wax waa kokki la waaye soxna Xadi Jóob gànnaar lañ ko mujj di wax ndax yët dañ ko yëtoon sëriñ Tuubaa gànnaar ba soxna su gaawoon gane fa am 1904 looloo war a soxna Xadi Jóob gànnaar mu ne leen kooku mooy Aysatu ummul muminin mooy gan gi nga xam ne moom mooy terul sama geneen gan gi di changé mu daal ñetti fan lañ ci teg bu mu koor sëriñ Tuubaa di ko woor la lii moom ma ko wax ci lamiñ boppam bañ ko yotee Serigne Touba it nee na Serigne Touba dafa jël baramu sànq la ñu bu dugal ko ci biir gémmiñam ba ne ko xaysitu xanaa di nga woor weer ci ëllëg sa mu boole kook mag ñi ak soxna Xadi Jóob ne nañ ko yóbbu sama dëkk ba jox dara ma naan ñu tere leen ma ko foofu waaye donte weer wi da leen def ci na mag ñi wax soxna Xadi Jóob bu mu ko jox wenn dafa war a woor ni mag ñi. day kontaan lu mu yëkkati joxe ko damay bëgg am gan gu mag di ree jarul leen sama gan gu mag di lu mu yëkkati joxe di bernde bala ñoo um koor uh-huh. waaye suñ demee ba koor gi màggat ku ree ci kër gi mën na yal na ma yàlla musal ci yow xanaa yow yaa tala ree suñ gan gi tàggoo ngay ree fii de ku fi ree moom moom yal na ma yàlla musal ci moom na kër wallaay la ko ko doon ko daan defe de dëgg waaw waaw ci la mën a Sarr Serigne Touba moo doy kéemaan liir bu amagul ay bés ci biir néegi ndeyam di ko woorloo ñetti fan la magee weeru weeru koor ñetti fan weeru koor teru sëriñ Tuubaa joxe ndigal ci na na na na woor loolu mooy karama yi nga xam ne moo jiitu ci karamay Soxna Gawane bañ ko indee daaru mën naan jooju tamit ñu teral ko ba dellu dafa toog diir bu yàgg boo xam ne bi dafa lankoonde dootul jëfandikoo weenu Soxna Xadi Jóob boobu ca ganaar Sëriñ Tuubaa ci boppam Soxna Xadi Jóob da ko fekk ci biir xayma yi ne ko ñun kat dañoo am jaaxle ci Aysatu mi ndax boobu léegi nangatul jëfandikoo weer ween ween wi lii may wax ni sëñ Bachir Lo moo ma ko nettali bu sëñ Mouhamadou Lo ndax daf ko woo ba ñu ne ko Bachir damaa bëgg tey mu wax la sama diggante ak alxuraan nu mu demee mu ne ko bëgg naa ko xam mu ne ma mun ci la ko wax loolu ne ko soxna Khady Diop toog jaaxle lool ci ñàkk gu ma ñàkk jëfandikoo weenam ma jirug weer ak lu topp mu dem di ko wax Serigne Touba sëñ bi ne ko Khady Diop dama toog te jekki maay def ci moom alxuraan te noppeeguma ci maay def ci moom alxuraan te noppeeguma ci di ko wàññi dara dama nga toog nga xam ne koo xam ne gi feregut ak soow Serigne Touba jël di def ci moom alxuraan kéemaan mënut a weesu loolu waaye daal soxna si dana leer na seen bajoon boobu day xolub sëriñ Tuubaa ndax firnde ji tamit euh, bi ko sëñ bi toogee juróomi at yoo yi ne gis ko ndax xam nga gànnaar ga 1903 la fa sëñ bi dem moom mu gën a si àdduna 5 la fa sëñ bi def 6 7 ñu jàpp ko yóbbu ko ci Jolof at moom la si Abdoulaye borom dër bi gën a si àdduna ndax moom mooy taw gannaaw géej gi moom mooy ci taw si Abdoulaye borom dër bi waaye moom góor la. moo tax suñ ne taw gannaaw géej gi dañ naan ci góor ñi sëñ Abdoulaye borom dër waaye ci jigéen ak góor jigéen yëpp soxna su gawaan moom la sëñ Tuubaa njëkk a gis ci ci ci ci gannaaw ci gannaaw ci géej gi kon sëñ bi toog na njaareem ba ba mu jeexale Thiène 1912 dafa dem na namoon soxna su gaawoon lool daal di bind bataaxal ne ko Aysatu ñëwal nga set si ma maa ngi njaareem moom soxna su gaawoon la ci xew ci ay kéemaan mënu ma ko nettali fii waaye su ma su si feexee dinaa ñëw ñu ñëw ñu àggale ko maak moom. kuñ tuddee ay Aïchatou dafa am kéemaan gum ci njëkk def sax moo tax tur yu diis lool sax te dafa xam boppam dafa xam fi ko sëñ Tuubaa teg dafa am benn magum taalibe boo xam ne dafa tu amoon ay seex yu jigéen. mu tuddee kenn ki soxna su gaawoon keneen ko mu tuddee ko keneen kam ko tuddee sax kooku ku baax la waaye bañ ngéntee ba ci ëllëg sa magi taalibe bi ñëw fan di ko nag dama amoon ñaari seex kenn ki yow ko tuddee keneen ki maa ko tuddee diw bëgguma tudd tur waaye kenn ki daa seq maanaam wàcc dafa wàcc liggéey ki fi des nag mooy soxna su gaawan mooy ki ma la tuddee soxna su nag xamoon naan noonu lay mën a demee de man de sëriñ Tuubaa ci boppam moo moo nangul ku ma dendale kenn nee na sëriñ Tuubaa ci boppam dafa ma ber sëñ moo ma ber nangu nangu nangul ñu mooy dendale kenn kon turu soxna su Gawane dafa diis ku ci amati ñi ay seex bul tuddee soxna su bu ko tuddee soxna su Gawane tuddee ko ñaar yëpp wala nga tuddee nga tuddee ko ñeneen rek waaye bu ko tuddee kii di ko tuddee kee soxna su Gawane nee na loolu sëñ bi nangu sëñ bi ma ber musul jóg nag ci di wane moom mooy Serigne Touba moom soxna su Gawane waaw musul jóg ci di koy wane te di ko waxee te di ko doxee ak sañ-sañ ba ak daraja ak ma maqama yi nga xam ne amoon na ko ci digganteem ak boromam kon euh, xam naa ne gàncax mi xaar ci wàññi waaye maa ngi dellu si Soxna Aïssa bu ngeen yàgg maa ngi ñëwaat léegi sonn dama ñëwoon dellu si yaara si rek. <laughs> kenn jàppal ci loxo ni ma nuyul soxna maam Isa wala kaay seeti ko wala dara man sama yaay ci Louga la dëkkoon dëkkunu woon ak ay murit ay xam nga am murit fu mu dëkk day doose ñoom dëkkal sama yaay bu màggal jotee mu luye oto kon nag mu ne mu tàggu sa yaay. ni borom oto bi tey nag bu màggalee may ma ñetti fan ndax doomi sëñ Tuubaa ji tudd soxna Sugaan dama koo war a siyaare dama koy koo gis bi mu waxee loolu sama yaay ni ko xaa borom oto bi ni ko xaa mu ma daal di jóg sama yaay ko siyaare ma jóg topp ci te sama yaay ba di ko topp booba dafa am ful la yow foo ma ne ko ki ngay seeti laay boobu juróom-ñeenti at laa maa ngi sol si rek di seet seeni cuub fi xewoon na koy wert ak malikaan boo fi xewoon ma daal di ñëw sama yaay da ko ni Mbàkke mu ne ko sant wa mu ne ko faal soxna maam Jaara Buso laa tudd waaye di la dégg rek te mosuma laa gis xam nga nu mu sama yaay ndoom si nga àndal nu mu mu wax ko ko mu ko demal toog ma woowaat de kii man mi la war a tudd tur looy jël si rek sama yaay rëkk na ma pi sama xama fonk sama tur wi sama rëkk na ma lu na ma ko lii de yaa ma ko teg 8 heures ki suba ba 5 heures ci ngoon sama yaay ni ma xam ne soxna si fàtte na te ñu mu maa mu jékki-jékki di papa yi Mamour Gueye woo na soxna jaara moom ak ndoomam si sama yaay dugg si mën ko ci tudd ba jox ko ni ko takkal ko ko. jël ba ñëw na. ko boo koy yëgle yàgg fi de da koy wooyee yokk ma ñibbi Louga ba sëy si Touba yëgu ma dara toppatoo waatu ma dara ci kër gi. ba yàgg ma dugg ci oto laay dem bàyyi ba si Russie ba mu soxna ma dem ko sëyam du fekk ma ci oto bi mu waa lu tax ñu wax a sugaan a sugaan dem ca kër ga man ko kër ga kenn nga fa ma defe ni soxna sa nelaw na mun ma jéem yaay nga fa waaye la bi daw ma xeeb dama egsi rek sànni ki sama saalu yaay saak bi daw ni ko ma ñëw yaay di daw ba dugg ci kër gi mun ko yaay jee kon nit ngi ci kër gi fekk yaay jee sama xaritu yaay mun ma waaw waaw man ko lu ñuy natt mu ni junni man ko man xaaruma weer wi de sama junnee ngi waaye su ma ñëwee ci daayira bi ñuy sa rek mu ne waaye man di ki ngeen di sama yaram bi daw ñun moom moo ne ci daayira bi la bokk de waaye su ñëwee du ma ñëw su ma ñëwee du ñëw nuy juyante ba benn bis ma dem du ko ñëw ñun ma yow sa nga gisagut de moo aaye woon daayira ma ni leen nga ni leen ko aaye bii di ñëw ñu ni soxna maam Faati Mbàkke sëtu Faat Dia trois heures ma dem këram ni ko ma gisul soxna maam mi sa ñëw ci sa daayira bi bu ma faatoo demal ba ca moom ni ko kii yow la bëggoon a gis noonu la soxna si gaari ànd ak nday say maa ngi jaay ay maylus ba nday say jël ci benn ma dugg si ma dogale ko ma <laughs> sant wa gañe nga ma de man ne ko seq la bëggoon la lool dégg la gis la mu raw fi lool mu ni ma ah nan nim nee ca kër ga daal di ñëw toog moo ne man de soxna moo moomu de tudde naa ko daara daara sax ma ne ko moo ne moom laa tudde de man ma yow mii laa doon wër ndax sama liggéey bi tur bi da ciy amagut man ko dinaa fa ñëw suba indi la photo siyaare si la ma ñëw indi ko ñaari photo mu ne ci mbaax gi may ma xaalis ndax ab laa man ko soxna si lii taxumaa jóg ku ma ànd liggéey sëñ Tuubaa laa bëgg na waaye téye lii rek da nga ñëw poroxaan mosuma ànd ak ku bon nag bon gi yëpp maa ngi ànd ak soxna sëñ Matalaam sëñ Modou Bousso ak ko soxna si dama wax dul dëgg soxna maam mi laa bëgg a seeti bu ñu mu yëkkati 1000 francs ni ma moo paasal dem kooku di sama lépp may dox rek mi ma tegtale woon ba seen son bulo ma wàcc ne borom bi borom saret bi 1000 francs yi doon wër gis naa ko ma dugg si fekk Omar Fall mu taxaw ma nuyoo ni ko man de Omar soxna si laa bëgg ma de laal ndox de man ko waa lu mu def baax na man mën naa koo xaar daal di toog waaye soxna si dañuy tëll ak ba ma gëjee gis ke nuyoo booba ah gaawaan sekk ñëw nga daal may nuyu nu ñuy def ma liggéey sëñ Tuubaa man ko su ma demee Tuubaa ci yow laa jëm si waaye kanam nga ma ko nuyoo woon boobee ba léegi kanam googu de man kenn jàpp ci la ko jox bu soxna su daan ñi moom a tegtal soxna ma am bi sabat kenn